jërë ngeen jëf mbokk internet yi altine bi ñu génn métti woon na loolu foofee ca Sorano diggante ki nga xamante ni mooy Sa Thiès ak Reug Reug mu doon combat boo xamante ni amateur yi sax nuñ ko yàkkamtee dafa mel ni kat ñaari mbër yi yàkkamtee wuñ ko noonu ndaxte nag combat boo bu ñu moytul rek combat boobee dox si diggante Sa Thiès ak Reug Reug moo nar a doon bu nar a dàkk si saison bi gis nañ nag li nga xamante ni mooy seen face à face buñ doon def foofee ca Sorano face à face bu métti la ñoom ñaar nag ku si nekk yëkkati na ay kàddu jox sa morom ba Reug moom dafa jàpp ni bu ñu tegoon fukki combat fukki combat yëpp moom moo koy daan ak Sa dafa mel ni kat moom Reug Reug faalewul benn yoon ki nga xamante ni mooy doomu Double Less bi di rakku Balla Gaye numéro 2 waaye nag moom Sa ni kat retard si lamb moo ko tax a jël ki nga xamante ni mooy Reug Reug moom Sa sax nee na ñi nga xamante ni ñooy amateurs yi lu ñu bëgg rek moom rek lay def te amateurs yi dañoo bëgg mu bëree ki nga xamante ni mooy Reug Reug waaye nag Reug Reug yëngalu ko te nag buñ arbitre arbitre ni piip di ñëpp dinañ xam ni Reug Reug Sa Thiès moom rek du moromam mu combat boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ku si nekk yaa ngi yëy di yaa bi di wax yaa mën sa morom waaye nag dafa mel ni moom Reug Reug dafa mujj mer si propos yi nga xamante ni Sa Thiès na ko teg ko si kawam ba Reug nag loolee sax moo tax mu ne combat bi dina ko jaral bakkanam ndaxte Sa Thiès kàddu bi muy yëkkati nag ñu bëri dañoo jàpp ni moom Sa Thiès dafa saaga ki nga xamante ni mooy Reug Reug si baay waaye nag moom Reug Reug ñu bëri nag am na sax ñu naan dafay teg xel ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi loolee sax moo tax Sa Thiès di ko tontu naan nag yow mi mënoo maa jaxaseeg sénégalais yi sa yëfu seytaane yi ngay def kon nag combat boobu dafa mel na kat jaay na boppam diggante rëg-rëg ak Sa bu ñu moytulee moom rek mooy dàq si combat bi moom nag ku ko tëgg nekkul kenn ku dul Gaston production mu doon combat boo xamante ni nag combat bu nar a neex rek lay doon ndaxte nag amateur yee ko laajte ba Gaston production jox ñu ko mu nar a am en direct rek lañ ko nar a seetaanee si télé yi diggante rëg-rëg ak Sa Thiès combat boobee nag ñu bëri nee nañ dina neex lu tax muy neex ndaxte nag face à face bi woon démb rek wane na ko diggante Sa Thiès ak Reug Reug ñoom ñaar kan moo war a mën ndaxte nag bu ñu sukkandikoo si nga xamante ni mooy si kaddu yi dafay naqaree jugé ñu ne Sa Thiès moo mën wala sax ñu ne ki nga xamante ni mooy borom caaru yi géej mu sonal mbaru géej waaye muy Reug Reug moom moo mën kon nag combat boobu balaa nit ñi naan kii mooy daan wala kële sax mooy daan nañu bàyyi ba arbitre ne ba kenn rek daan ba arbitre yëkkati moroom wala sax loxo benn mbër ñu xam ne kat kii moo daan waaye nag jamono ji dafay jafe loolu ñu wax diggante Reug ak Sa Thiès mooy daan ndaxte nag combat bu nar a rek rek la amateur yi nar a